seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi déndee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance oto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone 10 78 171 0303 wala 76 271 13 13 seen agence de voyage Minan Travel moo may li ci yéene kaay cher internet yu enquête 221 dal leen jàmm dalate leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook enquête yéenekaay bi des soit na ci dañuy xamal ni en ñoom waa Côte d'Ivoire moom pare woon nañu ci Coupe d'Afrique bi lan leen indiwaat ba mujjee Sénégal gagné sunu gaynde yi mbaadu Côte d'Ivoire dafa nar a def surprise na ci d'Afrique bi en tout cas Kalidou moom xamle na ci biir yéenekaay bi na naqar dëgg la am ndax bu na sañoon nag iddi coupe bii nag ci Sénégal Sadio Mané di ko feelu ca wet gën ah en daal li wér te mooy mënoon nañoo rey match bi de ba ñu xasee ba dugal bii mënoon nañoo rey match bi comme ci réew jàmbur lañu nekk te stade ba yépp nag seeni supporter dafa nekk lañu yaatu jéglal ko tu politique ji nga xamante ni wàcc ay élection présidentielle yi coow li mu ngi ne kur ci assemblée nationale gannaaw élimination Karim Meïssa Wade demande commission d' parlementaire bi nga xamante ni waa PDS dugal nañ ko ci assemblée ba noppi di tuumaal ay juge nag mbirum ger coow li nag fi mu ku ko tuutal jàppal na fi mu conseil constitutionnel ñoom tuutaluñu ko benn yoon yéenekaay bi dellusiwaat ci histoire ne mai 1993 histoire u maître Babacar Seye loolu dong nag moo ñëwaat ci Sénégal conseil constitutionnel ñuy fanweeri at na gannaaw coowal maître Babacar Sèye bii jamono ji waa PDS nag sulli nañ fi ab histoire boo xam ne xamuñu kañ lay jeex ci taxawal gi ñu taxawal nag commission d'enquête parlementaire ci assemblée ngir ñu càmbar nag doxalinu conseil constitutionnel malheureusement yéenekaay bi xamal nañu ne li xajamal mbir yi kay mu di waa benn Bokk Yaakaar yi nga xam ne xamuñu tànk gauche la ñuy feccee wala tànk droite ñoom ñi nga xam ne seen candidat jàll na ci parrainage bi di candidat officiel bu ñu demee ba seeni député di jàppale waa PDS ñu daal di tas nag conseil constitutionnel reporter élection présidentielle yii c'est parce que nag ñoom waa Benno Bokk Yaakaar xamuñu lu ñu bëgg et pourtant Amadou Ba mi seen candidat pare na pour bokk ci élection présidentielle yi lan la waa Benno Bokk Yaakaar yi bëgg kay looloo jaralaajte li daal moo di APR moom lonko ak PDS ngir ñu taxawal commission d'enquête parlementaire ci assemblée gannaaw tuuma yu diis yi nga xamante ni waa PDS teg nañ ko yenn ci ay juge jàpp na dañ leen moo tax ñu daal di liquider candidature Karim 1993 bu dul woon ak moom laa la wax Maître Abdoulaye Wade du nekk candidat ba mu koy def tamit dafa jëloon toutes ses responsabilités donte amoon na pression bu nekk ci ndoddam tey jii waa PDS laa la wax fayuñ naar bi xoromam ndax bu ñu demee ba même juge bi la ñuy jël di tuumaal mbirum ger c'est parce que fayuñ naar bi xoromam bu ñu sukkandikoo ci colonel Abdoulaye Ndaw dem na sax bay xam la ci biir yéenekaay bi ne Maître Abdoulaye Wade bu yëgee ne député libéraux yi ñu ngay song na ku mel ne juge Cheikh Tidiane Coulibaly wallaay moom bokk nañ ñi ko sauvé 1993 ngir mu bokk ci élection présidentielle yu bëri woon en jeu le point actu na assemblée nationale kay fi toll nii libéraux ya laa la wax reculer tuñu li ñu na moo di taxawal commission d'enquête parlementaire boo xam ne dinañu xool ndax tuuma yi ñu jël teg ko ci ndoddu conseil constitutionnel mates na koo càmbar waaw wala déet yéenekaay bi na lii xeeñ kay fi toll nii moo di motion de censure boo xamante ni gouvernement bi ci boppam moo koy jëlal boppam ne mu ngi ci diggante ñaari institution te moo di assemblée nationale ak conseil constitutionnel ndax booy xool assemblée nationale laa la wax bëgguñoo reculer constitutionnel tamit jël nañu position jàpp ne séparation de pouvoir dafay am ci nii wala ci na jënekaay bi ne attention de mbaa processus électoral bii nag duñ ko mujjee arrêté coow li bari na lool ci wàccaayu élection présidentielle yi dem na sax bay laajte tey jii bu ñu jekki-jekkoon juge d'instruction bi daal di jël responsabilité ngir tracé ci coowal conseil constitutionnel bii mbaa du yàq nag élection présidentielle yi en tout cas bu ñu sukkandikoo ci coalition Karim 2024 rawatina ñu nekk ca Touba nañ ne élection du am ci biir réew mi bu fekkee ne Karim Meïssa Wade mi ci biir yi yi le quotidien yéenekaay ne mbir yaa ngi taq suuf de attaque bi ñu def yedde ci ay membre conseil constitutionnel APR ci boppam la ñu xamul ban tànk lay feccee xamuñ ndax dañoo bëggul élection am waaw wala déet ndax li wér te wóor ma di ñoom ñoo ngay jàppale nag waa PDS ci assemblée ngir membre conseil constitutionnel yi daal di démissionné ñu àtte leen ci tuuma yi ñu jël nag teg ko ci seen i ndodd waaye ñoom waa conseil constitutionnel nee nañu assemblée nationale amul pouvoir bu toll ne di ubbi commission d'enquête parlementaire bay déglu ay juge moo tax ñu ngi sàkku nag respect des institutions séparation des pouvoirs Tidiane Ndiaye ma nekk ca conseil constitutionnel bokk ci ñu tuumaan nag mbirum ger ci candidature Karim Wade moom déposé na plainte ngir mbiri daal di leer ndax du seetaat benn yoon ñuy yàq nag deram juróom-ñaari chargé nekk ca conseil constitutionnel ñoom tam jël nañu seen responsabilité xaatim ni ki démb nag benn communiqué wax ne dinañ continuer seen liggéey tuuma yu jël na teg ko ci yenn ci ay juge ñoom ñu seetaan li ni mel yoon dina def liggéeyam ba nu xam lan moo tax ñu daal leen di tuumaal mbirum ger yéenekaay bi ne waa PDS ñoom ñu dee accusation yu yi nga xamante ni teg nañ ko ci yenn ci ay juge teewul reculer wu ñu benn yoon lu ñu bëgg mooy ñu démissionné ci ne mu gën a gaawee comme ça ñu mën a jàkkaarloog yoon lée fa yéene ne processus électoral bi fi mu toll mu ngi bëgg a taq suuf de élection présidentielle yi est-ce dina am ci biir réew mi ndax ñaari institution fi mu toll yi gën a mag ci biir réew mi ñu ngay xeex bokkuñu position fi mu toll kenn ku ci nekk li nga nam moo li nga programmé daal am yéene bi ne kenn ci ni teg nañ ko ci ndoddam def nañ ko dèjà dara du ci dëgg te ñàkk na respecte institution bu mel ne conseil constitutionnel ba noppi ñu bind seen communiqué boobu nag jëluñ seen responsabilité ndax signé wuñ ko ban mën leen a xàmmee teewul porte na plainte moom magistrat bi di Cheikh Tidiane Ndiaye di juge ca biir conseil constitutionnel nee na kàddu yi garaaw na ba fu garaaw yem diffamation ak outrage ci magistrat yàq deru institution bu mel ne conseil constitutionnel fi mu toll nii nag justice kasa la ñuy xaar mu daal di tracé membre yi nag juróom-ñaari charge yépp nag jël nañ seen décision bokk na ci ne dañ continuer seen liggéey amul lenn lu leen mën a déstabiliser nag ba duñu organiser élection présidentielle yi ñu jëm waaye teewul tamit tuuma yi dinañ ko topp ba sës ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo tuumal ñaar ci ay membre conseil constitutionnel ñu indi firnde yi wane ne ñoom dañ leen a ger bëgg nañu tamit séparation de pouvoir bii ñu daat koy respecté kenn ku ci nekk xam sa cër fam yem moo xam pouvoir exécutif bi législatif ba ci pouvoir judiciaire ndax ñoom juge yi jàpp nañ ne ci yoon dong la ñu tënku ci yoon tamit la ñu àtte kon nag waruñu leen a teg benn pression waxuma Jomaay Fay de fi mu toll nii digganteem ak général de beneen kaala moom tam ndax temps d'antenne yi nga xamante ni war na cee bénéficié wu te ba loolu tamit lu jëral lijjanti la l'observateur ni allié Ousmane Sonko la dina campagnal pour projet bi en li wértuwoon mooy niki démb nag def na communiqué moom Cheikh Tidiane Dièye di war a ne allié Ousmane Ousmane Sonko dëgg la te projet Pastef bii nag bakkanam la ci teg kon nag du jël yoonam di campagne dafay rejoindre candidat officiel lu Ousmane bii di Bassirou Diomaye Faye ngir ñu ànd def campagne gañe na nguur gi fi nekk yéenekaay bi des tamit ci match Sénégal Côte d'Ivoire bii nga xamante ni am na niki démb ne suñu gaynde yi day naqar la fanaanoo mësuñu yaakaar ne Côte d'Ivoire moo leen di éliminer nag ci huitième de finale yi Henri Camara di ancien international bu Pape tamit loolu la dëggal ci biir yenekaay bi ne leader yi nekk ci biir équipe nationale bii ñoom ñoo jëlul nag seen responsabilité Maliku Jaxate ne li ni mel lañ mënta gëm gañe gii Côte d'Ivoire gañe équipe nationale bu Sénégal gii bu doon gént la dañu ne ay naxaate la lokoot moom li mu xam le moo di Sénégal gii nag ñoom ñoo jox confiance waa Côte d'Ivoire bu fekkoon na wuyu si nañ leen ci seen football jël seen responsabilité ci terrain bi défaite bii duñu ko am ba ñuy éliminer nag ci huitième de finale yi teewul nag yéenekaay bi xamal nañu ne équipe nationale bu Sénégal gii bu yeboo ñu pare de critiques yi moom dana mel nettuléeg man le sénégalais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 ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñu nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li ko wër leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di plus 34 602 11 12 28 yéen ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li ko wër woote leen ci plus 33 744 75 08 39 yéen ñu nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen ñu nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak ak Cheikh Tidiane Sarr bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum